seet si waa Tëngéej seet ki nga xamante ne moom mooy Mamaya le 27 juin bi passé mu waroon a bëre ak Kara Dollé taxoon mu dem France waajal li nga xamante ne moom mooy combat bi waaye nag le 27 juin boobu gisuñu moom ak Kara Dollé ñu bëre lan moo tax bëriwuñu moo tax ñu ñëw fee fas yéene waxtaan ak moom dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yëpp ñu waxtaan ak moom waaye waxtaan ak moom tuuti rek ci tolluwaayu làmb Mamaya soldaaru Bamba borom der gi maa ngi lay nuyu di la. waaw Lamine auzu billah bismillah inna wali yàlla jërëjëf Serigne maa ngi siyaar ñëpp di bëggee waa Lutte TV encore une fois di la siyaar di rafetlu tey sa teewaay si stade bu Tëngéej bi nga ñëw fekk ma fi mu doon loo xam ne sama ferte la bu loolu weesoo dañu génn si tam xarit yow ma la ñu ngi ñaan at bii nii doon atub mbégte doon atub naataange feebar bi fi nekk yàlla teggi ko fi xam nga Sénégal yàlla jàmm yàgg fi daal parce que lu ñu soxla la. wax dëgg yàlla te réew mi tamit aussi réew teranga la di bëggee waa diaspora bi parce que mama yaa mama yaawu diaspora la di bëggee waa àdduna ñëpp rawatina particulièrement Tëngéej Touba fépp daal maa ngi leen di siyaar Lamine bëggee. comme ni nga ko waxee rek interview bi yaa ngi bëggoon yaa ngi bëggoon ñu defe ko kër sa mère sa maam sa yaay sa bàjjen sa lépp muy Adja Xaar Mbaye foofu nga bëgg woon ñu defee interview bi lan moo tax ñu mujjee ko def ci stade. ndeysaan parce que démb dama dem naa seeti ko këram toog waxtaan ak moom mais sama mère dafa tawat wax dëgg yàlla di di ñaan nag di di woo autorité yi si mel ni ay Youssou Ndour ak gaa yëpp ñu gesu ko parce que nit dañuy bàyyi ba mu dee ku nekk ñëw di jaxal jaxal bu amul fen te mère bi symbole la man bu ma bëggee yàlla bu ma bëggee làmb gannaaw yàlla sama maman xaar mbay la parce que dañu daan nekk si koñ bi di bëre di bëre nii xola wala bu buñ ko mësaane seen mu yëg si wëtir rek dañuy xeexeexlu ndeysaan te bëggul ay nit yooyu xeex dañuy ñëw xeexeexlu moom mu ñëw dañu may ay cent loolu mi ngi mel ni démb si man ñun bu ñu demee ba bëgg rawatina ñu dem di ko gis muy nekk si làmb ji di way xam nga di fi def loo xam ne tey ñun ñu dem ba am amuru làmb bu ñu bëggee làmb gannaaw yàlla maire bi la maa ngi ñaan nag yàlla gën a wéral cër yi démb dem naa fa toog waxtaan ak moom lu yàgg xam nga maa ngi ñaan yàlla wéral cër yi guddal fanam parce que moom guddal fanam suñu njariñ la rawatina suñu ferte la tëngéej parce que mënoo tudd waykatu làmb te doo ko tudd. Mhm. macha allah loolu am na solo yàlla yàlla gën a saafara. yàlla may ko bu baax a baax a baax képp ku nga xamante ne rek tëdd nga comme ni ma ko waxee le 27 juin nga waroon a bëre ak Kara Dollé taxoon nga dem France pour waajal sa combat balaa ñuy ñëw ci combat bi sax France nan nga fa nekk woon voyage bi. waaw Espagne laa dem Lamine Espagne laa demoon jóge fa après dem Maroc. waaw mu doon combat boo xam ne bu ma respecté la woon la combat bu ma bëggoon aussi bu waa Tëngéej bëggoon. lan moo tax Espagne après nga jóge fa dem Maroc. waaw que coach bi moo ne ma coach bi ab marocain la. après mu ma nañ dem foofu am na yenn affaire yu ñu war a job xam nga fa lañ ko doon job après sax am na yu ma doon jël di ko dugal échec yooyu noonu mu ne ma li ñuy liggéey fa lañ am na loo xam ne il faut ñu dem foofu après foofu bi ñuy dem sax ak Maroc moom kiiwul dañu jël bato bi nii mooy loolu bi muy ñibbisaan ma jël vol ñibbisi mhm, waaw. waaw wàccaay bi foofu nu mu demee. waaw wàccaay bi neex lek neex lek wax dëgg yàlla parce que tey jii moom damay wax mbëri képp ku mën a am moyen di préparer combat tukki bu la ko yàlla mayee moom xam nga. macha allah parce que di nga am récupération di nga am dina am leneen lu muy yokk si yow lu bari aussi dina yokk sa expérience parce que boo nekkee Sénégal rek da ngay yaakaar Sénégal rek mooy àdduna xam nga mais boo génnee di nga xam ni génn lu baax la lu am solo la te wax dëgg yàlla génn bi premièrement yokk na ma connaissance yokk na ma ma xam lu bari lu ma xamul woon am na lu bari lu ma gis lu ma gisul woon mhm, ma koy sante yàlla nag di ñaan yàlla mu gën a yokk. di rek jeexal na wax. lan moo tax combat bi am. est-ce que est-ce moom bëggatu ma si nekk di wax. mënoo si wax. bëggatu ma si nekk di wax parce que waa ji ragal la. non Kara moom mën nga ko waxal lu ne ba. datam waa ji jàpp na datam indi ko stade bu Tëngéej bi loolu waa Tëngéej yëpp la métti mu ni stade benn turbine stade bi benn tiir turbine la xoolal stade bi Lamine ndax stade benn tiir turbine la mun a stade benn turbine du duma fa ñëw di bëree stade bi du ma ne Tëngéej du ma ne Sénégal moo fi gën mais bokk na stade bi fi gën waaw maa ngi siyaar nag sama xarit benn Ibou Kane xam nga nit ku baax la moom moo nekk si stade bi aussi di ko garder nekk nit ku baax Ibou Kane yàlla yàlla na gën a wéral cër yi moom tanit jàmbaar la woon wax dëgg yàlla moom mii tamit ni nga koy gisee talent la si Tëngéej wóor na alxuraan yéen ñëpp jàmm nekk nit ku baax ku kul mooy loolu. waaw waxal ci Kara Dollé. non Kara Dollé Lamine bëgg ma si nekk di wax kooku bëggatuma sax tuddaturam man dama bëgg man bëggatuma ko instant bi boo bëggee dégg-dëgg. man su nañ ma jox beneen adversaire bu dul Kara Dollé mais Kara Dollé na dem ma dem maa ngi moom bokkatuñu yoon. Kara jeex na métti na nag trop parce que man dama juum parce que bi ma promoteur bi jox avance préparé na joxuma lépp parce que dama ne ko téel ma benn benn reliquat bi nii ba nga xam ni combat bi jege pour mu mën si préparer samay mystique mais su ma xamoon ni nii lay demee sax dinaa récupérer lépp toogaale ko parce que dafa métti tey ma génne samay moyenu bopp dem tukki xam nga ku xam ni génn rek ni mu méttee boo i moyen wala amoo foo nekk man fi ma nekkoon rek cent trente euh, cent trente quelques mille laa doon fay appartement lañ ma luweel. par lan par par jour. non du par par euh, par mois bi nii quoi. moom lañu ma ko seeru cent trente mille. seer na. Maroc wala Espagne. seer na Maroc bu mujj bi man ñëwee Maroc seer na bu doon Espagne la seerul Espagne dañ ma fa héberger rek mais xam nga fee ne mooy loolu nga ñëw préparer def lépp ñëw xam nga nga ñëw. ñu war a indi combat bi la vingt 27 juin bi boobu fekk na corona bi ñëwagul yàqoogul làmb ji ñu war a bëre par la suite waa ji promoteur bi tamit dama koy encouragé def na bëgg na def na sacrifice yu bari def na lu bari. kon combat bi kan moo bi Kara Dollé moo ko yàq moom moo. waxal ko loo xam ne parce que moom làmmiñam damul ci. làmmiñam kan la làmmiñam damul si poosam. man bëgg déggoo li ma la wax bëgg duma si nekk moom di wax. combat man dama bëgg suñ may wax nañ ma wax beneen adversaire bu pare. bu pare pour bëri ak Mama yaa war a bëre doon adversaire potentiel am nag waxuma adversaire yu njalxa njalxale wala ñuy bëgg ab yoon nii rek ñëw de dama dépassé loolu. ku la ñeme nga ba ku la ñeme. ku déggoo li ma a bëreel parce que man ñi ma ñeme instant bari na que ni mu demee la. Kara Dollé ñeme na. non Kara ma nag wax dëgg yàlla. kon Kara Dollé na dara ragal. non non non non làmb ji coow lee fi nekk rek déggoo bër gi démb li li li kii wax doomu dàngu te dëgg la du sosalaate bi mu bi mu uh, kiiweeg soq si biir géew bi lan la soq wax wuy sama ndey. Eh. <laughs> yow yëgoo lool. Ah, loolu la wax de man kay yëguma waaw waaw te kooku du waxantu kooku du waxantu doomu daangu du du sosol nit te dafa waat alxuraanu karim amul lu ko gën a foor. soq nee na bokk na soq soq nee na da koo daan moom moo ko man nee na nee na doomu daang nangu na ne doomu daangoo moom moo ko daan. waaye moom man doomu dànk fuuf waaye loolu muy wax moom waxi kasa la nit ki moom boo ko mënee man leer na ma ni buñ ko woowaatoon suba ñu fay doomu dàngu xaalis bu ko jar tëggalaat leen doomu dàngu jëlaat ko daan ko wax ni wóor na alxuraanu karim parce que xam na xam nga làmb moo tëree rek mais gis nga euh, Lamine ñun li ñuy def ci làmb ak li ñuy liggéey ak li ñuy def nii heure bii nii doomu dàngu sax du woon yoon muy bëreeg sox boo bëggee dégg dëgg nag wallahi azim laa la wax du woon yoon lan la ko doomu dàngu ëppale ba nga ne bu ñu leen boolewaatee mu daan ko ko ëppale lépp moo ko mën kon moo ko mën. xam nga moo mën si lépp instant bi doomu daangu tey bu ñu doon wax nii xam nga ñan la ñu war a waxal ay Pikine ay Ama Balde ay Eumeu Sène Eumeu Sène gis nga li muy entraîné ñoo bokk salle bi ñuy entraîné jamono ji ñun dañuy daje foofu si saal bi xam nga mais làmb xam nga rek làmb moo waxul dëgg chaque jour da ngay nekk si benn yoon xam nga ñu war la jàppal rawatina nag boo xawee isolé wu boo amulee jàppal tuuti wala amoo ñu nekk sa gannaaw pour ñu dégg la wala pour ñu yegg fenn bi sax dafay bari da day metti xoolal mbëru tëngee ji da ngay gis mbër moo xam day bëgg a tukki pour mu tukki day sonn te mbëru Dakar yi xaas yëpp ñaan ñu may leen xamal lan la mais dafa am lu fi nekk loo xam ne kenn mënu ko wax kenn mënu ko wax di ñaanal nag sama copain da doon jël soxna ama neex. ñaareel la xanaa. da doon jël soxna daal. amoon amoon na soxna. da doon jël ñaanali nañ ko jabar dimanche bii passé di ñaan yàlla. Ah, jabar ji fan mi ngi dëkk yëmbal xaw ma foofu koñ boobu xaw ma foofu maa ngi fay doog a dem. xaw ma ah déggoo li sa am na jabar am na aawo takk na jabar. waaw ñu ngi koy ñaanal mu dem si bëggul ñu ngi koy ñaanal mu dem si am si njaboot ju am barke. takk suuf la takk. takk suuf fan takk suuf di ñun ñëpp dinañ jàmm. mais non non non attends ama neex dafa am neex dafa amoon soxna. ku dem waaw yow ni waxuma dara. déggoo li ma la ama xëy na affaire bi dafa jàmp rek. parce que nit booy nekk booy dox si lu baax. di dox si lu baax ba ay waajuram ñëw gis la ñëw kii da nga ko war gaawal te moom noonu mu def noonu ànd naa si ñu bari am na ñoo xam damay kii si bi ñu naan ma sa copain nan la demee noonu di takk jabar te waxuñu ko mais affaire bi moo bette parce que ay parents taxaw kat ne ko bëgg nga ko mu ne ko waaw mu ne ko moom jaratu nga ciy wàcc leneen wàcc nag peut-être am na leneen lu muy def après ak ndaw si loolu mais loolu mi ngi suñu kanam bis ama ñaari kër ah man daa en tout cas am na jabar jabar ji laa am na déglu ma ama amaan na jabar nga may wax ama amoon na jabar bu fekkee amaan na dafa takkaat da nga naan ma takkaat waaw na jabar moom laa la wax ni moom lañ demoon waaw takkaat na moom lañ demoon. ñaari yow amagu benn ama ne dem ñaar. déggoo ma mais yàlla mooy dogale noonu man suma sañoon Lamine suba ma takk jabar parce que takk jabar desul si man. doomu daangu mais doomu daangu tamit c'est am na wala amagul non amagul. xaar ah, lu jot yomb chaque chose à son temps. wala man lay xaar. déggoo chaque chose à son temps gis nga Lamine àdduna lu jot rek yomb lu yomb. Lamine est-ce corona woo yow. corona man waaw corona wu ma ñàkk na. sa xët yi baa woon. ñàkk na yow ñu ñàkku sax ñu ngi corona virus de. doomu kii non yow kay dang fi mu dugal tey dafa garaaw. gàmmu gi am na jabar wala amul. gàmmu gi amul jabar. du gaaw a takk ndax Seydina Seydina koy tere. waaw Seydina fan Seydina bërki démb la doon génne <laughs> ba pare di ko tere déedéet Seydina du ko tere de daa gisagul rek bis bu gis démb rek ñu ngi waxtaan lool loolu bis bu gisee xam nga bis bu gisee jigéen ju baax ju ju toog ju yem xam nga ñun instant bi ñu toll fi ñu toll mënatuñu xam ku ñu bëgg ak ku ñu bëggul parce que boo amee tour wala ngay feeñ télé wala ngay feeñ internet rek façon bu nekk di ko gis lu nekk di ko kii mais nag yow yaa xippi say bët parce que sëy nekk na loo xam ne du benn fan du ñaari fan kon boo siy dugg rek war nga ko seet xool ko man na ki may takk xaw ma kan lay doon mais damay ñaan yàlla mu denc ma wala ma ko waaw loolu laay ñaan yàlla. yàlla ko yàlla def léegi tolluwaayu làmb fi làmb toll nii comme ne nga soxlaatoo ki nga xamante ne moom mooy monsieur le dëkk bi. moo war a doon maire dëkk bi sama. ah déet foo teg ni mooy doon maire dëkk bi. war a doon sama xarit la sama lépp la. gis nga ko est-ce que Tëngéej jox nañ ko bopp. bañ a kaa jox bopp man dinaa ànd ak ku Tëngéej joxul bopp. nañ yoon yàgg. dinaa ànd ak ba gën a garaaw sa la. waaw Lamine sant Diop. mooy borom moom déggoo li ma la wax bàyyam moo ñaay dëkk bi. al amin dëkk cëw leen. kon kon moom la Tëngéej woo. gis nga jumaa jee ngay séen na le bàyyam moo ko tabax gis nga jumaa ju verte jële bàyyam moo fa doon jiite moo fa def lépp mu nga ne seen yaa ngi koy séen ne bu verte bee baayam la kon kooku nekk na loo xam ni bu bëggee yaakaar naa amul lenn lu luñ ciy nekk di kii ak yooyu mu nekk rawatina mu nekk doomu dëkk bi te gis nga lu may xewle wala lu may lu may def rek gis nga ko oto ma ngi nii mooy gaare nii lu may xewle day day bàyyi léppam ñëw macha allah Lamine Diop bon sens waaw li mu bëgg moo ko xam te incha allah na ko suñu borom yëkkati si biir dëkk bi nii nit ku baax la sama xarit la bu may yëg la gis nga tabaski ni mu rëyee kii wu tabaski yaakaar naa gis nga loolu ma def ko isati xam nga ki weewu si jouru tabaski bi la ñëw sama kër fa la lekkee fa la defee lépp kon loolu man aw ma fayam te bu ko te yor na ay soxnaam ak yor këram ak yor léppam loolu teranga la loolu teranga la macha allah mais foog ñu wax tamit tuuti si tolluwaayu euh, làmb ji coow li bari na ñaari association est-ce que loolu luy jëmale làmb kanam la ban gis-gis nga ci am yow maam jëmalewul làmb kanam man loolu man ñaari association yëpp dem naa si amul nag benn bu ma si bokk si groupe yi yi may bokkoon groupe yëpp génn naa si. Euh, waaw man wax dëgg yàlla ku dee ak sa man du ma wax lu ma gëmul duma ma lu ma dul dund man dama dëggu dama direct waaw loolu jëmalewul làmb kanam mais li am solo man li ma dégg fee ne keroog dem naa si réunion ñoom ondu la foo mu mobile mais li ma fa dégg man tamit doon na lu ma soge te aussi tanit loolu jar na ñu waxtaan si bu dee euh, comment dirais-je bu dee kii bu dee Gris Bordeaux moo jiite bu jaree mu woo leen parce que nit bu nekkul si yoon woo leen nga wax ak ñoom mais dina da ngay oh, monsieur le maire kaay yegsi ñëwal yegsil yegsil kenn du moom kaay toog nii gars yi di la gis waaw. Uh-huh. kaay toog bu fekkee ni Gris si boppam moom moo war a woo gars yi xam nga. kaay toog nii ngay génn nii. ne si Gris Bordeaux moo war a woo gars yi wax ak ñoom parce que làmb ñiy jaar fii ñuy jaar fi jëmalewul fenn kanam. te gars yi ñu ngi commencé am kii de ñu ngi am gars yi man bi ma demee foofu ba ñëw dugal ko suñu groupe bi tëngéej gi yëpp dañoo màbb ne ñii li ñu wax c'est impo c'est important li ñu wax am na solo am na ñu bari ñu si gis seen bopp te imagine toi loolu noonu commencé dem commencé dem bu yàggee nii xam nga day doon loo xam ni day am ñaari kalan te làmb pour man loolu jëmalewu ko kanam ñun dañu war a xàccandoo dóorandoo bu Gris Bordeaux jaree wàcc ñëw wax ak ñun wax lan lañ bëgg ak lan lañ bëgg gars yi doxalee ko ñu def ko affaire yi mën a dem si kanam mais bëgg a toog nii xam nga ne dégg naa sax man si li ma dégg ñu ni Gris Bordeaux ne day yóbbu mobile ak ak ak kii wak yooyu da leen di plainte da leen di def nii da leen def naa te am na loo xam ne tamit Lamine yanuwul maana tey mënuñu toog ministre bi toog yàq ñu fii lu nekk waxal ñu fi lu nekk ñoom Gris Bordeaux dem fa ñëwaat ne bu kenn tuddati bu kenn waxati ba pare il paraît que jox nañ leen man yooyu ma dégg bu dee loolu la c'est pas normal loolu du yoon parce que ñoom ñi nekk si kaw nekk si ñuy ténor ñoom ñoo ñu war a dooleel ñoom ñoo ñu war a jàppale ñun ñi nga xam ne amaguñu dara mais ñoom ñi am lekk ba kii nii tey ñu wëlbatiku ñu leen di corrompe wala ñun ñu ñuy waxal lu bon bu subaa ñoom ñu wëlbatiku waat wax ñu ne kat bu leen waxati yi te waxuñu ñu cause yi tax wala waxuñu ñu lii lii la bu ñee leen dañ leen may foofu xaalis wala dañ leen may kii boobaa ñun dinañ gëm loolu. mais cinq personnes ku mel ni Balla Gaye Gris Bordeaux Modou Lo est-ce que am nañu problème mu 10 pour man waruñu ko mën a am mais nit dafa lëndam Lamine pour man waruñu mën a am problème mu 10 millions waruñu mën a am problème mu sax 50 millions mais nit moo lëndam te gars yi doylootuñu loolu tey bu amoon ni amaana ñu génn ko séddale ko booy wala ñu jox ko association wax leen ne leen fii la dugg wala jàppaleen si ay nit boobaa kenn du wax mais 10 millions yi fan lañ ko dugal fan lañ ko dugal wax ñu nañu ñoom nañ génn wax nañu kat def nañ ko fii wala ñoom ñoo ko lekk wala boobaa nit ñi mën a xam affaire li si nekk moo si li si nekk lalu si moo bari te man li lii raam nii si ñag bi la jëm man affaire yi information yi ñu ngi may wax lu bari te am na loo xam ne bëgguma ñu yegg fa man su ma sañoon nañu jéem a jàppalante jéem a xool ñu doon benn say parce que àdduna bi dafa jeex a pare tey boo gisee nit ñi ni ñuy wàccee nii xam nga da ngay gis chaque jour nga dégg nit ñi nit ñi di wàcc coronavirus bi ñëw tegu suñu kaw xam nga da mooy loolu kon war na mën a rafet war nañ war a mën a xàccandoo dóorandoo yéenente jàmm ñi nekk si yoon ñu jàppale leen ñu dem parce que tey jii nii ñoom fi ñu nekk noonu bis ñun ñoo fay ñëw nekk ji tey ñoom war na ñu mën a teg si ko teg ñu si loo xam ni dañuy xàccandoo di dóorandoo mais bu ñuy jaaree nii ñuy jaar nii bu subaa ñeneen créé waat gannaaw suba loolu rafetul waaw rafetul loolu nañ ko dindi. ñu léegi lan moo tax yow nga quitté ci groupe ñaari groupe yëpp bokk ma tax xanaa ñoom ñoom li ñu wax convaincre kenn convaincre message yi bari na tellement que message yi bari na am na ñoo xam dañuy wax lu ñor am na loo xam lu ñorul duñ ko wax xam nga aussi tamit am na groupe bu njëkk ba noonu amoon na wax ba am fa ay xuloo ak ay wax yu mbër yu mag yi ci boppam ma quitté fa bii tamit message yi Onde le Fou la lu tax nga quitté ma quitté parce que man temps boobu aw ma ko quoi wax dëgg yàlla man bu ñuy wax nañ wax message bu am solo bu am njariñ léegi moom dem na ba luy am nii dañ may woo téléphone dañ may woo téléphone su ma mënee ñëw ñëw waaw waaw ku soxla nii na ma woo téléphone expliqué ma ne ma lii ak laa bu ma demee xool ni kat wala li may wax xam ne lii réellement lu am solo la ma ñëw te keroog bi ma ñëwee sama oto laa taal ànd ak booy fii cinq litres ànd na ak ñoom dem foofu aussi ba ma demee tey jëlee naa fa njariñ jële naa fa loo xam ne Kona si boppam si groupe bi la bokk te Gris Bordeaux moo ko reconnaître woon daan ànd ak moom di liggéeyak moom lu bari tey bu ñëwee wax lu leer loo xam ni ay Gris yu ñu def ak yooyu xam nga du yoon nañu jéem a Gris Bordeaux na jéem a kii bërki Dembo Ndiaye déglu naa interview mu Maodo maga rakam mu wax wax ju am solo wax joo xam ne boo ci déggee sax Gris Bordeaux war na ci gis boppam keneen ak keneen gis ci boppam te warul mën a demee noonu te pourtant ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay ah. lan moo wax. li mu wax déglu nga ko Lamine man doo fi nekk naa. lan la wax noonu la. am solo la wax man déglu naa ko mënu ma fi taxaw nag naan la lii ak laaw ak lee. moom dafa wax ne dafa wax ne dañ leen a war a kaasal dañoo war a nekk. au devant de la scène ci xeex bi. mais ci cadre ci cadre dix millions yeeg yooyu noonu. waaw waxul ci boobu mais xeexal bi. wax sax mais lim ci wax nee na ma wax moom moom daanaka rek moom li mu wax noonu rek wax na lépp man dama déglu man information yi lu am balaa duma ma tëb tëb rek di wax loo xam ni mooy loolu wala di wax ay atu yaa man lu may wax lu nekk rek damay ñaan yàlla mu doon lu wér doon lu leer man du ma sosalaate wala di waxal nit loo xam ne nekkul si man kii sama xarit la nañu nit ñi bàyyeek na ma nit ñi bàyyeek moom man jàpp naa ko te gisuma luy tax ma bàyyeeti ko amul jigéen amul góor man maa ko bëggal sama bopp moom mu bëggal ma boppam parce que lu toll ni tabaski moom mu bàyyi léppam ñëw sa kër kon kooku daal desee la te dara ah rawatina ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënuma toog di ko wax man li may ñaan yàlla nañu yàlla na musal ak seytaane ak pexey noonu waaw man maa ko bëggal sama bopp Lamine. maa lay kan nga ko soxla instant man du ma fi nekk di lim naan diw soxla man dama am cër si làmba. waaw mais man Kara Dollé dama ko dépassé Kara Dollé ba promoteur bu may bëree ak moom li ñu ma lu ñu ma fay jaru ko mais pour bëgg a bëri pour wane sama bopp parce que moom xam nga rek alwaxala day wax. Mamor doom fa am coow. waaye déggoo li ma la wax man ku ma làmb booleel ñu fay ma lu ko jar ma mais nee naa la Lamine man tollootuma fu may bëre di bëri ay combat njorxo njorxo wala njar njarxa bu dee xaalis wallahi azim aw ma problème mu xaalis jëmm ji rek su ma amee soxla su ma ko woowee mu yëkkati teg si table bi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ni tey mooy loolu kon tey am na lenn loo xam dootuma fi nekkati di wax yow Ousmane xanaa di ñaanal particulièrement tamit sama benn xarit aale bi ñaan yàlla kooku fépp fu mu nekk rek wala lépp lu muy dund rek yàlla na ko yàlla na gën a leeral ay mbiram te incha allah bu mu tiit bu mu ragal aale jàmm lay am promoteur boo xam ne tey jii nii bokk na si lu ma am moom am na si wàll nekk nit ku baax képp ku koy jéem ma fexeel yow yow yaay fexewu wala ku koy jéem a yàqal yow yaay yàqu am na ñaanu waajur am na ñaanu baay am na ñaanu yaay kon maa ngi ñaan moom na dalal xelam na rafet njortu moom xam na man xam naa yàlla na ko suñu borom suturaal yàlla na ko suñu borom suturaal li may wax sama biir xol laa ko tibbee parce que nit ku baax la ku ma jàppale la aussi sama live. monsieur a maire. ziar naa la Lamine Diop ah. waaw Modou Lamine. maa ngi ci jàmm. ñu ngi lay ziar. sama jox na la dëkk bi te dara xew. sama tooma ah, no dëkk bi jox nañ ñu ko bu yàgg moom ak ay moromam yëpp parce que xam nañ dëkk bi dafa laaj changement te xam nañ lu ñu lu ñu man ak dëkk bi fu ñu toll ndax ñu yàgg xeexal te ngéej leen mais d'abord maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ziar euh, waa Lutte TV di la nuyu bu baax di la bëggee saa su di la seetaan lu bari loo xam ak loo xamul ñu ngi lay ñaanal parce que ci <laughs> <laughs> dëgg la dëgg la parce que euh, question yu wóor ngay posé et puis dal nga et ak yar bi xam nga lépp xam nga ñu ngi lay ñaanal daal yal na yàlla defal jàmm. sa objectif mooy jiite Tëngéej. waaw Tëngéej xam sama bëgg-bëgg instant nii mooy jiite Tëngéej defar Tëngéej parce que Tëngéej dafa arrière Tëngéej dafa arrière quoi suñu suñu paa yi nga xamante ne ñoom ñoo fi génne yàlla na yàlla yërëm xaar leen àjjana tey ku ci dekk woon da ngay jubal sa kër da ngay jubal sa kër kon dëkk bi dara changé wu fi xam nga te réew nag bu buñ koy defar ndaw yi kenn war leen see jiitu. te tamit kenn warul beddi ndaw ñi te Tëngéej dañu yàgg a beddi ndaw yi moo tax ren ñun ndaw ñu jógal suñu bopp pour boole suñu force boole suñu doole ak bépp ndaw bu am jom bu gëm Tëngéej ànd ceeg mag tamit bu am bu am bu bëgg a Tëngéej am gëm-gëm bi na ñëw teg ñu loxo ñu ànd liggéey. nga xam na ne léegi ndaw yi dañoo conscient est-ce que duggante na ak ndaw ñi ba xam soxla ndaw ñi ba buñ ko dénkoon Tëngéej mu def bëgg-bëggu ndaw yi waaw xam nga xam nga loolu moom loolu moom yàlla yàlla dafa kii mbër mu am combat tëngeej bu bu néew ba néew cent mille francs dina ko yëkkati teg ko ci table mais mais nag tëngeej du mbëri no non du wax yow yow ku bàyyiwul mbëri di nga bàyyi yow mbëri nga xam ne ñëpp moom lañ considéré ñoom ñooy def ku leen bàyyiwul di nga bàyyi ñeneen ah waxin leen moom bu dul dara dafa bëri toog ci ay victoire am am kon loolu fierté la si ñun ñun ñu dem ba mbëru tey jii ñu ni kii mbër la woon ñëw doon tëngeej dara kon ñi ngi koy ñaanal te yàlla mën na ko parce que gëm na boppam du tux du naan du sàcc du fen du dugg lu yoonam man du ma ànd ak ku ñàkk fayda de du ma ànd ak koo xam ni gëmul boppam te dafa gëm boppam kon yàlla na ko yàlla lafal cat. mais Lamine Lamine boo xoo boo xoolee boo xoolee ndaw yi ñun li ñu jot a def ci si si njàng mi bari na ay maire yoo xam ne ñu ngi fii defuñu ko parce que daaw daaw rek maa ngi defal ay élèves yoo xam ne inscription gratuite cent dix élèves fourniture gratuite quatre vingt quatorze personnes comprendre nga. te tamit ñu ngi continuer di def ak yeneen ak yeneen ñu ngi si jàkk yi ñu ngi ci ñu ngi si jumaa yi ñu ngi ci sport bi ñu ngi ci lépp parce que loolu la ñu moo ñu ko jara parce que loolu la ñuy dund xam nga ñun dañu dëkkoon si baraak kër yu am baraak yu seen dañ dëkkoon si kër yu am baraak yu seen moo tax dañuy xam baraak yu seen nan lañ koy fajee am na loo xam ne boo ko mu ngi noonu am loo xam ne boo ko dundul doo ko xam te ñun dañ ko dund dañ ko dund dañ doon lekk ndox gaay mbaxal comprendre nga tey nga ndékki suba doon ndékki xam nga wala nga ndékki añ bi mooy loolu ñun loolu lañ dund mais bu ñu demee nag ba yàlla suturaal ñu ñu toll fenn fi dañ siy góorgóorlu rek comprendre nga dañ siy góorgóorlu euh, fexe ba ñu doon dund coono bi koy gars yi koy dund ñu xaw a wàññi affaire bi quoi jëm leen a teg si code. dëkk bi tamit yaa ngi duggante ak ñoom. waaw man magi dëkk bi maa ngi duggante ak ñoom déggoo Lamine ma ne la man maa man mii da wax yow damay nodd maa si jàkka ji comprendre nga ñu ngi ci ñu ñu ngi góorgóorlu si lépp ñu ngi si mag ñi ñu ngi si xale yi parce que loolu mooy cosaanu tëngéej mais tëngéej nag dafa commencé dem ba commencé di ñàkk li mu moomoon comprendre nga dem ba commencé di ñàkk li moomoon loolu nag ñun ñi que muy waa Fass Dangu euh, Jokkul Cëwleen Arfat feneen ak feneen ku juum ñun ñoo ñoo dajaloo boole suñuy force ànd ak ndaw yi ak mag ñi am jom mag ñi bëgg dëkk bi ñu boole suñu force pour defar dëkk bi si loolu la ñuy dox suba si lañuy ñuy dox guddi si la ñuy dox bëccëg kii nag dafa doon kenn si man nekk suma xarit te si kàttanu suñu borom bu amaatee combat max mooy ànd bitim réew si kàttanu yàlla bu amaatee combat max moom ñooy ànd bitim réew tele laay waxe comprend nga kon yàlla na ko yàlla lafal cet suma xarit la dama ko jaral lu ne man mu jaral ma lu ne suma kër day lëj sumay soxna moom moo koy réglé suma genn wàll la àndantuñu quoi ba may doon mbër dañ dala ànd ak yeneen mbër mbëru tëngee yëpp man mbëru tëngee yëpp samay gaay lan ñoom ñëpp boo xoolee yàgg na daal bu may wax si moom mooy loolu may wax si moom du jeex mhm, borom baax la mhm. jaajëf la looy xanaa di di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ko gërëm moom mii parce que lii yombul léegi lañ déggante téléphone ma ne ko damay def émission mu dagg léppam te mi ngi nekk ci activité nekk ci liggéeyam kon yàlla na ko suñu boroom dooleel li mu bëgg moo ko xam suñu borom may ko bu loolu weesoo di gërëm waa Tëngéej di gërëm nag ale ale di ko ñaanal yàlla tamit lépp lu mu bëgg moom moo ko xam soo copee nag ren dana ma dafa may jox xar daaw loolu la ma dig Cheikh Fall mais ñaari at yëpp Cheikh faal bàyyi góor xam naa naa la boolem ñaari at yëpp joxuma xar te daf ma waxoon daf may jox sama xarit la nag sama lépp la waaw ren nag moom foofu la ma toogloo bañ ne suba la tabaski jotuma sama xar waaw mais nag xam naa nag peut-être soxlay aaj voilà jafe-jafe àdduna la mais maa ngi koy ñaanal moom tamit li mu bëgg moo ko xam suñu borom jàppale di ñaan yàlla jàmm yàgg si dëkk bi di ñaan yàlla mbaru tëngee ji nañ gën a xàccandoo dóorandoo xam nga 100 pour 100 bi nañu bokk say xam nga comme niñ koy waxee di wat gaal di yëgandoo waaw fii Tëngéej Badou mbay en passage maa ngi koy bëggee mi ngi siy liggéey liggéey mucc ay Badou Mbaye moom amu leen fayam amuñu fayam yàlla mi yor fayam yàlla na ko suñu borom fay barki euh, si tabaski bi laa ko woo di ko baalu ak mais ndeysaan loolu dafa rëy si moom mu kontaan kon yàlla na ko yàlla na lafal cat yàlla na yàlla na gën ñu boole daal ñu doon benn say maa ngi bëggee ñëpp ku ma limul nga xam ni dama juum di ñaan yàlla nag ñi fi génn àdduna bari na trop lamin fii nii ñi ñu dëddu fii génn na bari na bari goo xam métti na métti goo xam ba démb moo si mujj sama koñ yal na leen yàlla na yërëm tàbbal leen àjjana yi fi daw si di ñaan sama papa fa mu tëdd tane yàlla na yàlla na waaye fa sama suuf si kawam di ñaan sama yaay yàgg fi ba fekkee sama njariñ di bëggee ñëpp jaay